kuréel gi tudd Touba sax ca sëriñ Muntaxa Mbàkke joxoon leen digal ngir ñu reeteet bépp jafe-jafe boo xam ne mu ngi am ci ndoxum Touba mi tey jii kat sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Sohaybu moo leen oolu woon ngir waxtaan ak kuréel googi ginnaaw bi ñu ñëwee nag sëriñ Abdou Samad diglu na techniciens yi nga xam ne ñoom ñoo xam liggéey bi waaye it ñoom ñoo xam terrain bi ginnaaw bi mu leen laajee ci jafe ndox mi lan moo koy saafara techniciens yooyu xamal nañ ko bu baax jafe yi nga xam ne moom moo am ci ndox mi ñeenti weer rek lañ leen appal Touba gépp am ndox ñu teewlu kaddu technicien yooyu. leen Touba manki wut forage. borom xam-xam ci ndox moom la manqué. waaye manki wut forage. Madiyaana gii daa toog ci bàqu ndox. fii laal ñi ma ko doon waxal ci jataay boobu Baye Moussa Diagne mi ngi mi ngi nii mi ngi nii toog mi ngi fa woon. bañ tànnee moom lañ tànnoon euh, président plombier fukki plombier ak ñaar daje man leen. xam-xam bu ko liggéey moo fi amul waaye du du loolu su ma ci amee kàddu madiana gu dajale deux millions ma naanal googa madiyaana ba dugg geneen te dañ am robinet bëccëg dëkk bi yëpp ma ne naa ko noonu ñu ne ñu ne nañ dem ma ne leen nag bala ma koy am dañuy dem te maawu raxmati ma am autorisation pour laal tiwo yi ndax ku ci laal te joxuñu la autorisation dañ la fay fekk dal sa ñu daan ne nañ dem biñ demee ci sëñ Moustapha Dieng muy Balla gay Baye Laat Ayda ak Mourtala gay mi ñoo àndoon dem bañ demee ñu laaj ma ma jaaraat fii ma jaaroon ma ne ko man de day Madiana gis naa juróomi forage yu taxaw yoo xam ne ñi ngi joxe benn cent soixante boo xam ne la ca nekk ci ndox bu taje dana leen jaaxal. mooy li nga xam foo ko man lii jàng naa ko Liberté 6. ci ku ñuy wax Alaaj Sembel ak Abdou Sow moo yoroon hydraulique liberté 6. jàng naa ko Algérie. Worgila. Mm-hmm. Biskra. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. Hashim Sow. Hashim Sow ci mercure rouge yi fañ koy defee. tiwo tiwotéri lay jaar liggéey naa ci tiwotéri yooyu. ci fii ci si. am naa ci diplôme ba taay. dama lay yow ku la ne woon fexeel ba dëkk bi am mhm. def ba am ndox. nu may def. forage lépp ci yow la wax fexeel ba dëkk du man ñeenti weer Mbacke dëkk bi yëpp am ndox du ma dindi benn tiwo. du ma branché loo kenn di la tëralaatal tiwo di laaj ay tiwo di branché déedéet fu ñaari tiwo tëdd benn ba defu dara ma sulli ba fa nekk jël branchement yi delloo ca sensé wan yi dëkk bi amaan ndox forage benn taxut wan yi lañuy wàññi buñ ko wañé bu weñ la forage bi tej mu def suuf suuf si xereñ ko boo wiisatee kala griffe bi du dem day for nga ragal mu yaq nga wacc ko yëkëti kees ga upp ci lolu jikoy forage daru musi bi ci yon daru musi forage bi ñaari 200 la langalé ben bimu ba fi ci euh, cornice soxna may dafa am wan bu fi yakku wan yu yakku won na ben polembiri lañ jëlé pire a ah, if yi ñoo ko fi andi mu défar côté bi jëm tali soxna may li ko fi dalé ba jumaaja ba ba bassin sëñ murtala amatu ndox ta forage ba ngi fonctionné clapé ba ki wan wan pompe direct bi itam ba ca forage ba da pan depuis dawati Satu ba lé ken ko bi rek moy pompe mm-hmm. bo ñaari ci wo yoy bu nek gën gaa néew gën gaan néew cinquante mille la pen six bi yar pen dix bii fi tëdd amatul du yàq ci suuf si nga xam ne boo calculé ñaari tuyaux bu àggee ci bassin ba juróom-benn kilomètres yi bu matee mu ngi taxaw ñaar fukki million ak juróom-benn li tuyaux yi jar rek di suulee ci suuf te tuyau boo ci fay mètre mille franc mu six mille franc ci tuyau buy jar soixante dix mille boo ci fayee six mille franc ñu sulli la ko nga teg ko jariñoo ji fenen bo boobu porasu keur seigne ñaan ci ki mbeddum yeen mi jël nañ fi ab 200 bo xamanteni ni ma nga dem ba mbak bari 2 amul ben ndox ñu tej ñu waat benen 200 ci porasu keur seigne ñaan bi be ay wanama grippé ñu ñu daal di koy bàyyi tëralaat benen ñu ne fofu amul ndox ñu daal di laajaat bit laaj njëgu tiwo daal di tëralaat ay tuyaux ñu laxaso ni la ñaari 200 yi laxaso wat bu jaar mbàkk bari 1 eh, mbàkk bari 2 top men mbeddum tenku mi ba mbàkk bari 2 fa la yem ñu bosone ko fa legi ñaari tuyaux yoy deful dara man na 6 km muy ñaari 6 km di 12 km tuyaux yu yu nanu nanu lu kenn kenn du fa nanem ndox mhm. nga ñew ci tolok mbedd jalu xeer mhm. tuyau ba fay am ndox ñaari quatre-vingt-dix ak bracelet cent la dañ koo maaye woon ci juróomi forage yi nga xam ne ñooy ñooy bokkatul mbaaraka forage Ndiouga Kébé ak ak euh, forage bi ci yoon daaru ak forage su weñ yooyu ak forage su saam ak forage bees bi ñu mujj def daaw ci màggal gi ñu lëkkale ko ko defaree woon tàmbali ko tabax noonu lañ bàyyee kubéer yi ngir fenaat boo xam ne tuyau sax balaa fekk tuyau yi taxawaan ak wan yoo dañ ko doon laaj budget tabax ba jël ko ba xaalis ba pare te tabaxuñ ko tabax bu jaar yoon taban bi bu tooyee lo eh, écrou bi ñuy xeere di ko di ko di ko tijjee ko tëjee bu dugalee ndox day boo ubbee wan bi day grippé duut fu mu nekkoon fa la yem duutu yéeg duutu wàcc léegi bu ko defee tuyau boobu duutu am ndox ñoom duñ xam fan la ndox mi jóga nii la wala nii la lan lañ xamaat tëralaat beneen tour kon ñaare ñi tëdd waaw seen forage waaw mi ngi fonctionné mi ngi fonctionné lu ak ak ak mbusóor bi waaw ndox la ko ñàkk maayaat ah. ñàkk maayee boole boole ci wooyu léegi poraasu bu bees bi itam bu mu ñëwee ba agsi ci fii ñu bosone ko deux cent bi mu fi fekk ñaari deux cent yi benn baa ngi ci biir tali bi tuuti benn baa ngi ci biti tractopelle la ko gas benn bi 70 centimètres la benn bi 1 mètre la. ba 1 mètre gas naa ko dindi ko ànd ak ñoom dagg ko dagg tiwo bi ci kaw mu génne ngeeru dara nekku ci fii ci 20 mètres bi ku ma àndal ma gas ko génne ko dag nga gis tiwo bi dara nekku ci. 200 bi ci des màggalub daaru xudóos lañ ko tëj seen jiili laa doon defar branchement course ba dal ci kii ba affaire bi màbb ñu demaawu rahmati woote. am ku fa jóge ma rahmati daan ne moom moo koy jël en tëj ko di tëj wan buñ tëjee wan bi ñu pare ubbi maagal fi jàll ma dem di ubbi seen gisuma ko ma daggaat tuyau dindi ko ba àgg fa mu branche li woon dindiwaat collier bi di ubbi wan bi xool ko tuyau bu tokk ndox tali njuga kebe dañ fay teural 160 bobu mo te daan nonu laxasu ñew ba mbeuk ci tëli njógee way bala muy mbeuk ba accès ba jalu xex mbedd mi jëm soow dafa tegon benn te def 160 bobu dañ ko daggon wa Touba ci kanam bi ñi defar tali bi daw eco 3 euh entreprise euh, eco 3 ñom ñoroon jàppale wa Touba ci kanam xoos ko yakati wok maawu dem fa mënu koo tëj ak effort ñu nekk foofu 15 jours mën ñu koo tëj ñu bàyyi ko ba ginnaaw màggal gi ma romb ko. abbu Tuuba ca kanam ñii ñoo ko jëli ñu almatraak tuppeel ma dem tëj ko bi ma ko tëjee ba pare wax leen ne na nañ ko delloo jox ma tiwoom ñu delloo ko waajalu xeer am ndox dañoo bañ. ba tey delloowuñ ko pax ya sax kenn suul maanaam boo jógee tolloo ko waaw oh, foofu yëpp. ma delo ci tuyau bi rek ñu jox ma benn longoor ma delo ko ci dañu bay ne ma duñ la ko jox liggéeyoo ci ñu ñu jógee ci fop bo ñëwee ci sumpu gi boo tolok forage sam mbeddu sumpu gi nga xamne mo génné ci tolloog monument bi den hôpital hôpitalu sumpu gi biñ tuddee hôpital sumpu mm-hmm. mbedd mu mag momu tu continuer ba takalo forage sam ñaari 160 soixante den def benn dëkk ndox ndax foofu la sama kër France loolu kay ko waxee rek ma xam. andi ah? beneen ak tractopelle gase ko tractopelle benn tiwo moo jaar foofu bu am ndox ci monument bi tractopelle la ko gas te moo bokk ci juróomi forage yi. waroon na may Daaru Xuddoos ndox mënoon nañ koo toj Daaru Xuddoos yëpp jariñoo ko waaye ba dugg daaru mi na ma fu ne waaye forage bi mu ñëwee ba ci tali bi dañ koo sakk boobu it foofu la jaar dañ koo sakk ya ca des nag tiwo yi ca des benn amu ci ndox am nay 160 am nay 125 dara amu ko ndox. ba ca am ndox cent soixante la hmm. moo jóge ci juróomi forage yi mbëkkoontali Njuga Kebe ñëw ba tolloog monument bi ñu gasal ko mu tafe ci kër yi ñëw ba tolloog tari bi waaw ti woo fii bul ciment bi fi sëñ Fall defoon forage su sëñ Fall lañu bëgg a takk xaaral xaaral sëñ bi maanaam ca dox ja sax fa mu li ñu wax dëgg-dëgg ba génne ko décret bi hmm. mooy dañuy tëj forage boobu forage daaru man naan te moo ëpp doole ci dëkk bi ëpp ci ndox ëpp ci baati man xam naa ko bi sëñ Fall jëkk def tëj nañ ko Mbàkke ma ne leen naa ko defar ñu ne ma doo ko laal nee nañ ma du ko laal ma leen soixante-douze heures ma delloo ko ni mu meloon ñu ne ma doo laal tuyau bi ndax wax nañ ne mënuñu parce que bokkoo ci ñoom bu ma ko defarul tëj leen ma bokkoo ci ñoom ñu léegi ñu ne ma dañuy nangu sa batch waaye duñ ko defar batch ba sëñ Mor Soxna tey ñu nangu moo ne leen bu leen kenn nangu bat moo ne andiwuma ko maaw pour dagg autorisation dama ko andi seen sama bat si bi ngeen ne bat sam bii ngeen ne da ngeen ko nangu ci wax dëgg moo tax ma ni ko sëñ bas ci gere sous-préfet ci boppam moo wax ne tuyau bi ay technicien ñoo ko wax ne ko mënatuñ koo defar dañ koy éliminer mu joxe accord dañ koy éliminer kon ñu ne maawu rahmati amul droit jàllalewaat tiwo bobu muy dem. tiwo bobu mo yor ñe te tiwo bi mo yor gede yor sura. te mo upp doole ndox ci dekk bi buñ dajalee ñaar fukk forage ben boobu leen man. te moom mën na ko defal te man mën na defal tiwo bi 72 heures du ko mën. mooy bu jóge daru ma wa te 600000 la leen defal léegi. mooy bu jóge daru Mara bi jóge daru ma muy doxaat nim doon doxé man leen benen bi ci top tiwo bobu dañ ko waron xol ci ñent xibla yi. ku ci nekk ñu dàq ko fa toj ko dagg tuyau bi ma raccordé ko def ko PVC dugal ko ci PVC bi defal ko clapet de retour muy génn te du dugal. <laughs> après nga envoyé sëñ bi tuyau bi tuyau bi kii moom dëkk bi la. élément bii nag. il faut ñu protéger. waaw mun jiit la daal. waaw. ñoom suñ ñu ko indil. sëñ Tuba. ni moom la ñuy ñun dañoo volontaire di jël Sëñ Tuubaa ngir ndox mi am ñun amul beneen soxla te ndox mi day am ndax ñi ko ñi ndox mi dañ koo tëj téye ko dañ koy bàyyi ndox mi am bu ñu ko deful du ñu am jàmm sama wax du mu tere lu ginnaaw ñi booleel nag dañ koy menacé ko di ko di ko di ko def lu nekk loolu moom dañ koy bàyyi sëñ bi ak yéen sëñ xaw naa mel ni moom ci xam-xam jëm si dafa làqu ni ci ginnaaw waaye bëri na lu ma xam ci dëkk bi loo xam ne lii kere ba ma ko nettalee sëñ Mamounam sëñ Mourou Bousso damaa yebal